what is your name what is your name nan nga tudd nan nga tudd my name is Abdullah my name is Abdullah maa ngi tudd Abdullah maa ngi tudd Abdullah Abdullah how old are you Abdullah how old are you Abdullah ñaata at nga am Abdullah ñaata at am I am 17 years old. I am 17 years old. maa ngi am fukki at ak juróom-ñaar. ngi am fukki ak juróom-ñaar. Where do you live? Where do you live? fan nga dëkk. fan nga dëkk. I live in Morocco. I live in Morocco. maa ngi dëkk Maroc. maa ngi dëkk Maroc. do you live with your parents do you live with your parents ndax yow ak say parents yéen dëkk ndax yow ak say waajur yéen dëkk no my parents live in Senegal no my parents live in Senegal déedéet samay parents ñoo ngi dëkk Sénégal samay parents ñoo ngi dëkk senegal who do you live with kan nga dëkk kan nga dëkk wala ñan nga dëkk I am a student. I live with my colleagues. I am a student. I live with my colleagues. man étudiant la mag samay collègue ñoo dëkk. what does your father do? what does your father do? sa baay moom lu muy liggéey lu muy def. sa baay moom lu muy liggéey. my father is a soldier. my father is a soldier. sama baay ab soldaar la. sama baay ab soldaar la. And your mother, what does she do? ak sa yaay moom lu muy def. She is a housewife. She takes care of the family. moom de moo nekk ci kër gi. mooy toppatoo njaboot gi. How many brothers and sisters do you have? How many brothers and sisters do you have? ñaata ay mbokk yu góor wala yu jigéen moom nga am. I have one brother and two sisters am na benn frère benn mbokk bu góor ak ñaari yu jigéen. What do you do in the morning? What do you do in the morning? lan ngay def ci suba si yow lan ngay def ci suba gi I do many things in the morning I do many things in the morning ma lu bari laa di def ci suba si li may def ci suba gi bari na de hmm. What do you do first and when? What do you do first and when? lan ngay njëkk def waaye ak kañ nga koy def. waaw The first thing that I do in the morning. Hmm? The ah, li may njëkk def si suba si nga may laaj. li may njëkk def si suba si. Yes, in more detail. Yes, in more details. Wow. te nag nga détaillé ma ko nag nga leeral ma ci. waaw Yes, I usually wake up at 5 a.m. 5 a.m. Hmm, man de damay faral di yeewu 5 heures du matin. Wow, wow, that's too early. Hmm, that's too early. Loolu moom teel na di. That's too early. Wow, that's too early. Loolu moom teel na di. Yes, because I have to pray on time. Yes, because I have to pray on time. Waaw, ndaxte dama war a julli ci waxtu julli bi. wow that's very good habits hmm. waaw loolu moom baax na habits mooy li faral di def that's very good habits after waking up I take a shower before praying gannaaw bu yeewoo damay sangu njëkk may julli what do you do next then what do you do next mooy lan ngay def lu ci topp après what do you do next lan ngay def après lan moo ci topp ci li ngay def after all I ready myself to go to school gannaaw loolu yëpp de damay pare sama bopp ngir dem école after all I ready myself to go to school what do you go with who do you go with yow ak ñan yenay ànd wala kan ngay ànd ak who do you go with I go with some friends I go with some friends damay dem ànd yenn samay xarit yi ñenn si xarit yi lay ànd ak hmm. when do you take breakfast then when do you take breakfast then kañ ngeen di ndekki kañ ngeen di ndekki when do you take breakfast then oh we often take breakfast around ten yem ah ñun de dix heures de faral di ndekki we often take breakfast around ten am ah, okay do you take a car or you work do you take a car or you work ndax oto ngeen di jël wala da ngeen di dox hmm. the school is not far from home the school is not far from home ah pourtant école soriwul kër ga de déedéet école soriwul kër ga the school is not far from home how long does it take you to school ban diir lan ngeen di diire ci yoon bi ci bu ba ma ko doon wax approximately thirty minutes for work approximately thirty minutes for work ah daanaka rek mën nañu wax fanweeri minute ci booy dox approximately well nearly wow that's quite long what about the car that's for work what about the car waaw loolu moom yàgg di bu dee oto nag what about the car five minutes sometimes ten minutes ah juróomi minute rek yenn saa yi sax fukki minute five minutes sometimes ten minutes juróomi minute rek yenn saa yi sax fukki minute waaw what is your favorite subject at school? What's your favorite subject at school? ban subject nga gën a bëgg ban sujet ban matière nga gën a bëgg école I like English but my favorite subject is Arabic bëgg naa anglais nag waaye nag arab laa gën a bëgg moom laa gën a tànn daal waaw do you like your Arabic teacher do you like your Arabic teacher ndax bëgg nga sa ki lay jàngal arab bi sa teacher arab ndax bëgg nga ko I like him but I am fan of my English teacher bëgg naa ko lool de waaye nag dama naw lool dama bëgg tim ki may jàngal anglais can you write Arabic as well can you write write Arabic as well ndax mën nga bind arab bu baax ndax mën nga bind arab bu baax yes sure I learned it when I was younger yes sure I learned it when I was younger waaw maa ngi ko ba may nekk xale who is your best friend at school kan mooy saxarit xarit bi nga gën bëgg ci école kan mooy sa xarit I can't choose but Ali makes me happy no mënuma tànn nag waaye Ali moom daf may bégal moom Ali moom daf may bégal makes me happy wow are you somebody's best friend hmm, ndax yow itam meilleur nga ci keneen ndax am na koo xam ne yow yaay meilleur waaw I yaakaar naa loolu de I'm a friendly person I like sharing ah yaakaar naa ko de ndax man ko ubbeeku laa te damay bëgg di partager ak ñeneen ñi how do you see yourself in classroom how do you see yourself in classroom naka nga gisee sa bopp ci classe bi yow ba ma doon wax yaay kan wala keneen di ma wax yaay kan pretending as a cool boy ah di fuglu rek di xool rek yaakaar na nekk naa ku dal de what can you tell me about your future lan nga ma mën a wax ci sa suba ci sa futur what can you tell me about your future just planning as di plan teg ay plan rek comme samay collègue what is your dream I mean mooy li mu ci jublu mooy lan mooy sa bëgg-bëgg dream mooy gént nag what is your dream nag mooy lan nga bëgg I want to become a soldier want to become a mooy dama bëgg mujj nekk soldat I want to become a soldier are you training yourself ndax yaa ngi jéemantu ndax yaa ngi jéem train sa bopp are you training yourself not at all but it's my dream déedéet sax du lool de waaye sama bëgg-bëgg la not at all mooy déedéet What is your last word for me what's your last word for me lan nga may mujj wax lan nga may mujj wax thank you for your questions jaajëf si say laaj thank jërëjëf si say laaj thank you for your questions you are welcome see you tomorrow ñoo ko bokk ba suba you are welcome see you tomorrow ñoo ko bokk ba suba nice to meet you bye nice to meet you bye kontaan naa ci daje bi ba ci kanam bye bye.